benn bi naufrage bateau la Joola amee bisu tey yam ci anniversaire bateau bi lee kenn ci rescapé yi duñu xamal ni souvenir yaa ngi fii ba léegi. mu ngi am ñaari fukki at ak euh, benn mais dafa mel ni ki tey jëy bi teel la teel la am euh, man personnellement euh, ma nekk rescapé donc affaire bi moom dafa métti trop. souvenir bi moo muy ñëw mais ñuy sant yàlla ñoo xamante ne suñu morom yi ñu bàyyi yàlla bàyyi leen ñu ñu bàyyi ñu donc euh, on a décidé de pour ñu positiver yëpp euh, ñu dundu situation bi. ñii di famille des victimes yi ñoom di réclamer toujours pour ñu génnee leen bateau bi des ci géej gi ba léegi ngir ñu mën a def seen i dëy. man mii mënuma laa wax sama yaay ndax gis nañ ko wala gisuñu ko keneen ak keneen ak keneen mais leer na man ci ñu gis néew nañu torop par rapport ak ñu des ci bateau bi. donc damay jàpp ni que ñoom ñëpp ñu ngi ci bateau ba léegi kenn génnewu leen mémorial musée bi occasion la pour ñu génneel ñu suñu bateau am fuñ ko denc ci mémorial bi saa yu ñu fa ñëwee xam ni que ñun kat suñu parents yi fii mooy fii lañ leen denc donte du ñëpp la mais xam dinañ xam ni que au moins que kenn desatul ci ndox mi ñëpp a ngi fii ñu ngi fii si bërëb bi saa yu leen soxlae ñu ñëw foofu seeti leen saa yu ñu yi ñaan ñu ñëw foofu ñaanal leen loolu mooy suñu objectif loolu la ñu bëgg si fàttali bateau Aline Sitoé Diatta moo daan assurer liaison maritime si diggante Ziguinchor ak Dakar dal di def naufrage le 26 septembre 2002 ñeenti téeméeru nit jot si ñàkk seeni bakkan.